bon je suis Ousseï Niass secrétaire permanent de l'APR donc je suis à la permanence départementale de Thiès euh, Sans que dégg ay bruit yoo y ait il paraît que les anciens ont fi une pour réunion nous avons fait permanence et puis nous avons fait une instruction pour une permanence man fii maa fi nekk ba permanence bi ubbi ba léegi man je dépend de personne parce que mag laa dem naa ba retraité nangu toog fii di def bénévolat di gérer parti bi depuis boobu ba léegi nag depuis parti bi sax nekk ba léegi man maa yore paperasse yi raxatina bu ñu ubbee permanence ba tey man consensus moom ma fi teg ken forcé wu ma ci dara mais am na ay règle permanence d'abord il paraît que j'ai sciemment fermé la permanence pour dem permanence pour réunion la pour point de presse la pour euh, lépp la militants yi responsable yi daje fi ken musul am loy wax Ousseynou Niass ñëpp ko apprécier ci effort yi muy def ak temps bi muy jox parti bi je pense que tey kenn taw nek di am disant que moi je suis pour Jean ou pour Paul je ne suis pour personne sinon pour la paix. donc il y avait des travaux ce matin j'étais à la permanence et l'après-midi je devais aller à Tivaouane donc malheureusement travaux yi gis ngeen briques parce que bi eu une inondation la euh, semaine passée ndox mi dafa dugg ci permanence bi dem ci fosse bi ce matin avons manque fosse bi bi nekk ci biir c'est permanence donc su fekkoon man prévenir je défie quiconque ku nit envoyé na ma texto wala wax naa ak moom ci téléphone ci affaire réunion bi et moi aussi je suis euh, ancien personne n'est plus ancien que moi personne je défie quiconque qui dit que ne moom mu ci parti bi donc je pense que nañu bàyyi wax yooyu anciens réunion nañ fi quatre fois deux fois yu maa ngi nekk yendu nañ fi añ j'ai permis à ces anciens ñu mën fi yendu añ fi niinal fi yàq fi bu ñu paree man maa ko faxe nu ma ko defaree te j'ai accepté cela et du ma ko nangul kenn parce que permanence kenn du fi yendu mais nangu naa ko parce que samay xale samay jarbaat samay rak ak man ci boppam ñun ñoo fi nekkoon yendu c'est pour le parti donc je pense que tey bu ñu ñëw nag quand même yenn saa caabi yi sax su ma fi nekkul ci boutique bi laa fi nekk ci boutique bi laa koy bàyyi man rek maa nekk ci permanence bi je suis là des fois le matin de 7 heures à 23 heures non stop je pars pas chez moi dimanche yëpp a yem jour ouvrable ku fait que ma fi alors je pense que tey waruñu tenk di wax ay yu D'abord moi je suis malade vous avez vu les ordonnances hier j'étais à Dakar et l'ancien maire de euh, Kayar peut témoigner cela parce que ñoo avons beaucoup maa ngi nii dama nekk convalescence opération laa nekk ni je dois même pas être là c'est que bëgg travaux yi ñuy def rek ma Je ko assister demaale def samay je suis ni, ordonnance tout le monde sait que je suis malade opération là def amul 15 jours alors je de grâce nañu bàyyi nañu bàyyi li de grâce nañu bàyyi yenn yi ñuy parce que lolo baaxul parce que lolo aussi dafa yàq rek moi je suis pour personne ancien là comme ancien je suis prêt quand même je suis prêt je suis prêt. En tout cas, en tout cas, faut pas nous, faut pas nous diaboliser Nini. Non, non, il faut, il faut, il faut nous diaboliser, faut pas nous diaboliser Nini. Voilà nous diaboliser parce que man, dama fi nekk pour tout le monde. bu ñu ma waxoon permanence bi kii na kon damay bàyyi clé bi fii ci boutique bi am na benn jour moom damay làkk bàyyil ci boutique bi parce que amna naa samay occupation amna fuma wara dox je ne dois même pas être ici parce que je suis malade. ba réponse nga par rapport ñu ne c'est le coordinateur départemental mo wax ñu tëj ci permanence euh, le coordinateur départemental. parce que cité je je jure je jure que musuma sax téléphoner le coordinateur départemental parce que du sama vocation man su day wax chef de cabinet bi laay waxal du ma ko wax télé woo téléphone sax faf du ma woo téléphone te mom géré wuma le coordonnateur départemental musna na fi je prends en témoin doyen ñaa mi fi jóge légui amad Camara et ñom Ousseynou Keita ñew nañ fi réunion ma il faut lan la ñu né réunion ma ni nañ dem bon parce que ken avisé wuma parce que c'est pas possible pour nit jek jek rek di ñew ci permanence avisé wuloko personne ne m'a avisé Augustin bi mu ñëwee boobu dama né ko Augustin kenn du fi réunion mu présenté excuse am wax ni ci yoon bi yoon Dakar la gisee la téléphoné ñeneen ñi rek ñu libre et mu wax leen ñu permanence fàtte avisé mais ça c'est c'est c'est c'est très correct donc moi je vois pas pourquoi ñu naan dañoo tëj permanence bi kenn musuma wax kenn ñemewu ko sax je défie quiconque kenn ñemewu ko wax ak téléphone sax nañu seet Sonatel personne parce que ñàkkuma boobu fayda moi je suis ici kenn fayu mu dërëm je fais du bénévolat avec bëgg sama parti ak dimbale président alors nous fi nek nak nit ñi avons seen une inondation j'étais là jusqu'à 3h du matin kan moom fekk dimbale ma té pourtant nous xam nañu chambre de commerce dafa inondé permanence dafa inondé kër yi dañoo inondé j'étais là jusqu'à 3h du matin personne n'est venu pour m'aider alors de grâce nañu bayyi yoyu moi je suis pour personne je suis pour la paix. démb Diouf moomu ko yëgal sànq ni gars nangam nangam nangam moi j'étais à Dès d'ailleurs je viens de Tivaouane j'ai fii pour jël samay ordonnance donc voilà je suis là jusqu'à cette heure-ci c'était à Tivaouane j'étais allé voir mon Marab. prochainement parce que le mais bu ne nañ ma avertir bu le vendredi bu même même me ñu ma fekkul ba ben, ne fekk parce que toujours sous may dem fenn je laisse mon fils ou quelqu'un ici toujours tout le monde peut me témoigner cela. Je suis là jusqu'à 23h. Je quitte chez moi à 6h du matin pour tenir permanence mon correct pas de mon newu fi. pour ne ñu va être en femme c'est ce matin qu'ils ont amené cela parce qu'il m'a téléphoné et je suis venu Je me tâche chambre. tu vois sans l'amener le maçon devait venir Ciment euh, ma banque ci Kenkay parce que j'étais pas là. Mhm. donc la on devait faire cela cet après-midi. à la respect. Wow. faudrait il paraît que l'amplitude nañ ko. je pense que permanence vie, c'est pour tout un chacun. donc c'est pour les mili les militants sont actionnaires les responsables sont actionnaires les autorités sont actionnaires c'est pour personne et moi je suis là uniquement pour veiller ci bijou bi donc je pense que di toji lampe comme ça muy lëndëm parce que nee nañu nangam nangam et je crois que ça c'est c'est c'est c'est de la méchanceté